si naka suba si. <laughs> non bul de boo demee nu may def yow tamit boo demee ma tumranke de. non Cheikh moom est-ce que déjà woon tumranke boo demee damay a tumranke. du ñu bàyyi mu dem rek. Cheikh mi ngi soog a dugg ci kàmb gi de. waa mais garaawul. yeggagul sax ci fond bi fi mu ne nii. waa mais garaawul garaawul. Ah, kii xanaa xamoo ko ku ko xamul dégg nga ko kii mooy Cheikh Faye. ah Ségal ñun dañ ko jiitu ci néeg bi de waaye néeg bi am nañ dëgg sërëx de. Hmm. Cheikh dafal nànk de. <laughs> na. <laughs> ah Lisa. <laughs> boo waxe kon gis na ni yaa ngi xeex sama gouvernement garaaw. may ngi damay ragal sa damay damay bañ sama waji sanku rek. garaaw nañ jàll ci horoscope rek gis na fi ma taxawo tay non Lisa bu lox loolu dañuy jall ci horoscope tay bi. Mhm. tay nak muy mercredi. Mhm. ak euh, yemboog 18 juillet. 2018. Mhm. affaire di ça passe vite hein waaw ga amago ben information. tay ci le 18 ni ni ni ni nii. may oh. laajte rek. <laughs> Hein? ok dañ koy doonee ak euh, bélier yi Lisa bélier yi ñoom ñoo juddu diggante 21 mars. jàpp 22. avril <laughs> mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne. Mhm. sens de contact bi nga xam ne dañ koy am xam nga nit ku nekk day faral ci àddunaam. Mhm. mu jékki-jékki rek yàlla ubbil ko wërsëg muy jokkoo ak nit ñi. Mhm. maanaam Lisa yow Cheikh Faye daaw de vraiment nga am. yoon wax la pour nga nekk ñoom day day day baax. Mhm. léegi ñoom dañ lay accepter naturellement. Mhm. mu ne na nga exploiter loolu. d'accord waaw benn yi na ngeen exploiter loolu dafay nekk loo xam ne yéen ci seen jëm bopp. Mhm. dina leen mën a jàppale tey ba lépp loo xam ne projet la woon. boo leen amoon amu leen xaalis amu mhm. leen xalaat bi amu leen ku leen ko bindal mhm. xam loolu def ba sotti nit ñooñu noonu ñoom ñoo leen siy dimbale xam nga léeg-léeg ñu ne nit ay garabam nit mhm. nit ay garabam mais dañuy wax ne des fois nit nit ay posonam tamit waaw kon déjà loolu na nekk li nga xam ne ñu si bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yi tóoroo yi Lisa waaw ñoom ñoo juddu 21 avril jàpp 20 mai mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne la vie peut être parfois

naaj ak mars. d'accord ñëw ci ñom d'accord xam nga naaj ak feu. Mhm. fu ñu àndee day tang jël waxuma la tangal ak explosion de chaleur. motax nak tout ak seen nuisibilité ca oui sentimental ba. Ah. fa la explosion bobu di eh, amee. Eh. au finish néna na bu ñu demee ba ci ba ci fin de journée bi. waaw excès bobu nga xamné ne dañ ko amone mhm. day indi complication ci ñom ah. way parce que. à trop s'approcher du feu on finit par se brûler. ah là déjà ils sont brûlés. faut demander à Icar ils se sont brûlés. Mhm. Donc, c'est compliqué. Je moï, nous sommes du 21 mai, mm pour 21 juin. D'accord. Nous avons dit que nous pour nak jël sommes vie en mai, c'est ça donc voilà di la voilà rek mhm. wala wayadi pousse moi madame

ba baaxut. am na ñoo xam ne ñoom. loolu a def te waxu la loolu dëgg rek. perte nga lépp yàq nga lépp perte nga lépp. tu sais il faut beaucoup de temps pour gagner la confiance de quelqu'un mais il suffit d'une seconde pour la perdre. mais et puis perte bu graw je te dis. boo xam ne pour nga defaraat ko. day day métti. day métti trop dañ ne yàq moo gën a gaaw. defar cancer yi. lii mhm. saa 21 juin jàpp 23 juillet. Mhm.

xam nga ñom ñoo 24 juillet 23 août. waaw dañuy nekk nga destination. xamuñu ñu xamuñu oh. et puis ñu ne dañuy dem massage Vous fa demee dinañ xam <laughs> doxul non dañ dem ñu jëm leen. noddante en réalité refuge la. ah d'accord refuge la. c'est un déni comme on dit en c'est ça. un déni voilà.

mais tay silence sax lañ leen wax maanaam buñ nañ japp seen comme xamuñ fuñ jëm nañ noppi rek lem ba mu doon tok waaw toog ba mu lem ba mu doon tok vierge 24 mhm. août japp 23 septembre ñom dañuy nekk ni ñi nga xamné euh il faut ñu optimiste mhm. gëm seen bopp mhm. bañ a négatif li saa la moo tax gars am esprit négatif ah da ngay nekk ci yenn tolluwaay yi tamit yenn situation yi doo ko tey sax booy négatif waaw mais est-ce que négativité boobu noonu. Mm. baax na ci ci ci dund doomu aadama. baaxul ci kenn parfois man dama jàpp ne baaxul lu ñuul lu lëndëm baaxul. baaxul ci il faut optimiste. Mm-hmm. yaa ngi dégg pessimisme nga bàyyi ko. nga bàyyi ko vierge yi nag dañoo jël pessimisme ak négativité ndeyal leen ko seen bopp. yéen yéen yéen ñaar ñëpp nag. bon ñoom moom lañ jël tey ndeyale ko seen bopp jàpp ko loolu muy nekk loo xam ne mun na leen indil ay problème yu mag tey ci mm-hmm. journée bi. Mm-hmm. nañ def beaucoup beaucoup beaucoup attention jëm ci côté boobu. d'accord mais bu ñu xoolee ñoom aussi par rapport ak loolu. seen vie sentimentale pourtant ñi ñuy nekkal di bëggante ak ñoom ñu ngi leen di pour lii ñu ne nii te xam ne baaxul. ñu dañ mu dañ de. mais dañ dëgër bopp. mu dëgër bopp. balance yi ñoo judd 24 septembre lii sax jàpp 23 octobre. waaw ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne euh, dañuy soxla ku leen teete ku leen. bann bannee ayoo ku leen ayoo nenne. c'est comme seet yu bees yi ñi soog a takk jabar. niñ leen nii def. comme comme kii. waaw déedéet Lisa loolu yëpp non loolu yëpp garaawul comme daal yow ah. xam nga nee nañ ku sa gémmiñ teg doo wax jàmm comme da ngay laaj ay takku dënn mm. di wax ay waa ji takk démb aaw nga ne na accéléré ñaare tey yow wutaloo ko jàmm yow yow Cheikh Faye fi nga jëm ak moom ndox du fa am Cheikh na def attention bu baax. xam nga nan kii daf ñoo bëgg a mélanger. Eh. toi et moi on ne peut pas nous mélanger. Cheikh. voilà Cheikh. grand ku lay ne sangul. grand waxal. bàyyi ñu. waaw ah, ah, tu peux pas nous ménager yow tay tay tay xawma naka nga yeewoo mais dal sen pas le bon. eggalil eh, Cheikh da doon sama xarit rek. damay coupé sa micro rek ok légui balance mom moom ñu ne. Ah. léegi ci biir loolu dafay nekk li nga xamné ñom ñoom seen njaboot nañ commencé di xol sen besoin de base yi. Mhm. li nga xamné mom moy mooy jàppale dëgg ci sen dund. Mhm. pour ñu commencer di ko doxal bu baax baax. baax na it ci journée bu ñu mënee lire ben livre. ndeysane dina baax ah def un peu de lecture def un peu de lecture. gars yi tuñu de. waaw dina bax def massage. Hmm. di sa dem plage def planche. i c'est ah. yaa ngi dégg. waaw di sa ah yéeg ci kaw terrasse bi. Hmm. noy ben noy bu neex ci ngalaw lu neex. wala ñu def benn barbecue ah li nga wax neex na de. waaw balance kañ tey moom xaw lu xew noonu. mais xoolal. sama bureau bi fii nii mën nañ fi tekki de fourneau barbecue. di ko fa doon sama bureau bi waaw foofu moom baax na. benn instant. en nee na loolu. nañ ko def. ok fay nekk loo xam ne day tax ñu recharger waat seen batterie xam nga lu tax. nee na fii ak weekend bi. loof la ñuy def c'est compliqué. d'accord donc nañ ci bàyyi xel bu baax. Mhm. scorpion yi Lisa saa ñoo judd 24 octobre. Mhm. jàpp 21 novembre. Mhm. ñoom dañu nekk nit ñi nga xamné euh buñu xolé scorpion yi seen avenir. Mhm. nañuy déglu seen intuition. -hmm. nañuy déglu seen njort. Mhm. dañuy nekk nit ñi nga xamné ne également seen e sens rawatina ci jigéen ñi. Mhm. xam nga 6e sens bi tay lu muy waral. wax ma ñi nekkal dañuy doxal wala ñuy am gel. d'accord. légui ñom nee nañ ci lan. ah yaa ngi ci lan scorpion yi ci scorpion yi waaw. ñoom Jibi ñay la. waaw légui bu fekkee tay nañ. hmm di lañ leen jàpp. mais buñu ñu télé hmm. duñu am dara.

capricorne Nous sommes 22 décembre 19 janvier. d'accord capricorne dañuy qu'il euh, il faut changer seen attitude ou seen comportement. Mhm. parce que dafay li nga frustration bii nga nous

Capricorne yi tey duñ ñëw seen wér gi yaram jàppandiwul. voilà dañ def attention bu baax a baax a baax. gis nga tey nga doon naan ci suba ak léegi xelli benn kaas nga naan. moo gën nag. et puis wala wuti sexew. sexew sexew. Mhm. Hmm? sexew dina baax verseau yi. waaw lii sa sa hmm. groupe. waaw janvier jàpp 19. février tey premier décan la wala deuxième décan wala troisième décan. man ba léegi toujours premier décan waxal rek. ok yéen premier décan yi tey. Hmm, neex mu ne déedéet. neex neexul. Isa neex. mu ne carte sur table bi ngeen teg. di jéem a wax dëgg. bu dala amee ngeen ciy jéem a wax ne yéen lii mooy seen xalaat sañ wax. Mm. da leen ñuy joué tuul tey. Mm. da ngeen di ak seen doomu bàjjen. nga wax ko dëgg mu dal sa kaw. Jibi Ndiaye wax naa la dëgg de. Mm, da dal sa kaw de. dina ka leer. dina dal sa kaw loolu nag nee na léeg-léeg del bàyyi yenn yi muy jàll. waaw muy glissé. waaw toute vérité n'est pas toujours bonne hein. à dire. merci mu ne ci biir loolu. Jupiter. dafa leen ñëw seet si. ñëw na. Jupiter ci boppam. ñëw na lu mu fiy def. ah seet si na leen te dafa dugg seen quatrième maison. famille. Oh. nekk na loo xam ne. waaw comme yow sax tey dañ laa invité ceebu kecax dina baax. <laughs> profité aussi pour nga waxtaan si bu baax a baax a baax. li sax ah, waaw comme Jupiter ñëw na. Mhm. famille bi ñëw na. Mhm. nee na na nga oh nee na na lépp loo xam ne lëndëm gis nga boo lekkee ba sa biir fees. Mm. indil jàmm. d'accord lépp loo xam ne ñagas-ñagas la woon ak ku ci mun nekk hmm. indi leen jàmm ngeen juboo ak ñoom am benn problème poisson yi nag ñoo mujjee ñoo judd 20 février jàpp 20 mhm. mars waaw mu ne ñoom dafa nekk li nga xam ne dans la vie à un moment donné il faut nga mhm. def benn break mhm. def benn taxaw seetlu xoolaat parce que actuellement poisson yi ils ont perdu la tête <laughs> mais ñoom amuñu sax tête bay perdre la mais voilà déjà ñoom li ñu jot am as néew déjà perte nañ ko léegi nag loolu di nekk li nga xam ne ñoom seen jëm bopp moment yi nga xam ne ñi ngi siy jaar nii uh-huh. ñoom amuñu tet di ko perte léegi nag yaramu kese lañ de gars yi dal seen kaw yàqal leen ci biir loolu perte d'argent hmm. day am ci ñoom ñu dugg ci ay responsabilité maanaam tey jii man ma am problème fenn ñoom ñu yow jël ko ñu ne ñoom ñoo ko garanti. Mm-hmm. poisson bu ñu moytuwul ci yoon mm. fa la mujjee ci jour tey bi lii sax yoon de

dama cay gis sam bopp ah d'accord yow tey da nga yeewoo ak tey fa nga génnee ci man dafa ne ni danaa la yóbbaale. Gara <laughs> bonne journée waaye xoolal uma xam nga lan la animu sax moom. ban nga may xoolal connecté wu na connecté wu na tey une à l'avance. ah oui Khady Ndiaye madame bu la yeboo tey na nga ceebu keccax monsieur bëgg na ceebu keccax tey de bu la yeboo na nga keccax mais bu ko def sama bos man tey bu xonq laa bëgg kon moom dafal ko bu weex man boobu laa gën a bëgg sax non bu weex lañ lay dafal non non non non non non ko bu weex démb dama dem bëri waay ah. waaw xam naa ne bu xonq bi heure bi demagul fenn mën na daagu ndànk dem marché lijjanti la muy lijjanti ñëw rëgal ba mu saf saf ban musique nga may may tey tey tey tey hmm, ci fin bi